laaj nga laaj bu am solo euh, waaye xam nga démission bi wala bokk euh, sëriñ bi euh, moom sëñ Cheikh Aliou delloo gi mu delloo liggéey bi moom bett nañu bare bare may bett na ma wax dëgg yàlla waaye nag comme moom bi mu biñ ko koy jox muy soobu ci liggéey bi tàggul woon kenn su demee ba nga xam ne mi ngi koy delloo itam xëy na moom moo xam ni tax mu delloo ko su ko ko sëñ bi ndongoloo itam li ñuy def kon mooy rek sant ko xanaa ci li jàll li ci kanam nag euh, li nga laaj ne ndoxum Tuuba ndoxum Tuuba moom kenn ku ne xam na ne am na complication euh, ndax li tax mu am complication euh, moo di recensement bi nga xam ne moom la ñu recensé dëkk bi moo baaxul ndax kenn ku ne xam na ne 26 forages war naa mën a yor 529 176 personnes kon nag su fekkee 26 forages ngi ci dëkk bi te nit ñi mënuñoo mënuñoo mënuñoo màndi cela veut dire que y a problème kon nag ay ay ay matuwaay moom loolu def na ku cee jël matuwaay yi nag amul kenn ku ko ci mën a jël ku ku tedd ki sëriñ bi. nu ñuy wax ñëpp nag dañuy supposer rek ak kenn ku nekk di teg say eh, say wax waaye ki mën a jël responsabilité moom kenn ki la sëriñ bi la sëñ bi nag lu mu def lu mu def lu mu wax rek nu def ko feeg waxagul nag eh, danañ am ay kàddu ak i xalaat ndax Tuubaa benn kàddu la eh, waaye nag feeg kàddu gi jëbagul fukki xalaat ak juróom wala junni xalaat wala million xalaat moo fi nekk kon kenn ku ne day wax xalaatam man nag sama xalaat ci loolu mooy dama yaakaar ne société boo xam ne daal dafay taxaw ci ndoxum Tuubaa moom mënatut a ñàkk ndax eh, kenn ku ne yaa ngi wax lu ne ndax ndoxum Tuuba duñ dem sax ba di ko fay ñu bare ñu ngi koy wax waaye lu mën a xew daal nan fexe ba société bi nga xam ne moo war a gérer noonu moom nekk société Tuuba capital capitaux yi aussi nekk capitaux murid yi eh, société bi nekk société murid yi ñu ñu mën koo gérer seen bopp ba même suñ demee ba nga xam ne sax ñi ngi ciy laaj participation Euh, suñ fayee euh, suñ defee amortissement ci investissement yi ba pare la ci def ñu mën koo delloowaat ci dëkk bu tedd bi loolu moom mënu cee ñàkk te Maoura May itam euh, damaa jàpp na xanaa ko ku baax ki ku tedd ki yàlla na fi te wér dana wut keneen ku fa dem saytu loolu ndax ñoom it wax dëgg yàlla amoon nañ solo ci dëkk bi ndax suñ ko bàyyee te remplacé wuñ fa kenn mën naa am kon ndox mi ñu daan jënd itam nag itam mën naa am mu manqué te su boobaa itam jafe-jafe indi. kon daal ñun ñoo ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi te wér moom daal lu mu wax danañ ko def euh, su waxagut nag kenn ku nekk am nga kàddu ci euh, dëkk bi waaye su xasee wax na genn kàddu la waaye ñun daal loolu lay ñaan te itam suñu demee ba am ci dëkk bi te mu nekk investissement yoo xam ne nañ fexe ba mu bañ a génne suufus Touba fii nga xam ne mooy Touba Bogo nag kenn ku ne xam na ne ndox ma fa nekk moom mën naa mandal Touba kon nag suñu demee ba ay investissement ñëw ci dëkk bi yoo xam ne dañoo war a euh, régler ndoxum Touba moom di ko yóbbu foo xam ne nii nekkul ci suufus Touba wala euh, wala nekkul ci moomeelu murid yi moom dana indi complication ndax la ko waral mooy bis bu ja demee ba jafe-jafe am rek juridiquement problème day posé wu te itam ñi investir ñaare investir foo xam ne moomuñu ko du leen yomb kon nag ginnaaw ñoom investir foo xam ne moomuñu ko du leen yomb lañ cay daw rek mooy jafe-jafe koy nuyit di dem di yóbbu suñu investissement foo xam ne itam nag sëñ bi amu fa kàddu donte sëñ bi am na kàddu fépp kooku jafe-jafe lay indi kon nag yàlla na yàlla bool